waaw léegi. <laughs> waaw yeneen. waaw sa impression ci match bi ah, ci qualification bi. waaw kontaan nañ ak bëgg rek je pense que tey moom bëgg nañ kontaan nañ parce que africain bi lan la ñu waxoon si biir dañ ne carrément il faut ñu qualifier équipe bi parce que tey bu ñu qualifié woon day day métti champion d'Afrique boo xam ne day sànni coupe du monde à la maison. rafetlu te neexul en fait tey bu ñu gisee boobu Sénégal bu ñu ñëwee taxaw seen ginnaaw équipe tey yaakaar naa suñu borom lii rek la mënoon dem quoi. donc foofu mooy sama ginnaaw mooy dem. amuñu vraiment lu ñu fay yàlla suñu borom dañuy santaat yàlla bu baax waaw bi bi dina remercier rek comme ni ma amuñu seen fay parce que yaakaar naa ne bu ñu gagné. yaakaar naa ne yaakaar naa ne. yaakaar naa ne moom tey tey tey jàpp naa ko tey bi dañoo yëngal yow tout ça yow merci dégg nga ah. yow merci dégg nga